jërë ngeen jëf mbokk na di ñuy topp ci Medina TV ci Sénégal waaye ci àdduna wërngal këpp ñu ngi leen di nuyu mbokk yi di leen ziar ñaanal leen jàmm bu baax a baax waaye sàkk ko ci yéen Medina TV di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak moom ngir lépp loo xamante ne actualité la ci réew mi ak ci bitim réew ngeen mën ko am à temps réel mbokk yi kon dañ koy dox ak waxtaan boo xam ne dañ koy sekk ak ki nga xamante ne moom mooy Laurent Ndiago ginnaaw démb combat nga xamante ne Alburax production moom moo ko tëggoon ci journée bu am solo boobu euh, moom Liss Ndiago mu doon ci laale ak Pokola Balde gis ngeen combat bi ni mu demee li xew ci biir waaye après combat bi itam li nga xamante ne moom moo am lépp la ñuy fas yéene nag waxtaanee ak ki nga xamante ne moom mooy Laurent waaye balaa dara dañ koy bàyyi mu nuyoo ak mbokk internet yi su ko defee ñu woyal waxtaan bi Laurent ñu ngi lay nuyu am mbégte ñëw fekk si la. nice waa ginnaaw ma sant yàlla. yee julli si Mariam bu di sant samay ñaari waajur yee di bëggee mafia bi ñoom ngay ay ga dox bi borom grand town na ah. di bëggee mafia bi yëpp yee mm-hmm. waaw euh, combat bi la woon avant combat coow li bëri woon na euh, jàll na ci jàmm dañ leen ni dañ leen ni dañ leen ni masaw euh, di leen di leen encourager bu baax a baax gis nga démb combat bi ni mu demee. waaw naas félicitation nga may wax ma ne la merci waa. félicitation wala encouragement. encouragé comme nan. mais arbitre dafa dafa dafa jox dafa jox victoire Pokola par décision arbitrale. naas non làmb la woon rek bi laay comprendre nga. mais naas arbitre bi nit la tamit mun na jub mais waaw yow kenn du la wax ko waa yow làmb gi seetaan nga ko te doo silmaxa te miyo boo quoi yee ah bu la neexee nga sàqul ko sa bopp de miyo dëgg neexul a ah, mais làmb la woon daal xaay na bilaahi waaw ah, mënuloon wees lu dul làmb wax geeg lépp neexal la woon nii rek waaw ñun xam nga ñu new ñu sax si loolu noonu dañoo doon neexal pour làmb gi xam nga promoteur bi yëg si boppam quoi yee voilà Mm-hmm. mu mel ne nag comme ni nga ko waxee lamb ji bu nekkoo bu nekkee dañ ko doon jaay mën nañ ne jar na parce que démb gis nañ mobilisation bi nga xamante ne ñaari adversaires yi def nañ ko mais gis nañ itam combat bi démb bokk na ci combat bi gën a neex ci journée boobu waaw mais lamb ji liñ si waxante xeex si signature yi ñoom ñaar mais lamb yi noonu la waroon mën a demee ko yee lamb woon rek barke yàlla ñun ñu nag waa waaw ay waaw waa Pikine ñu nag ñoom duñ ay noonu quoi yee lamb la woon nii rek naa si jeex na billaay dañoo doo ruube rek ñun ñëpp ku si nekk li nga doo wax xool dëggul si yow yee waaw. mais mais si biir combat bi eh, dañoo seetlu ne que bi ñuy bi arbitre di njëkk a sifflé Liss dafa am chute boo xam te ne daf ko def ci biti toog ñu ne dafa daanu waa Pikine am ñu ne dafa daanu def foofu ñii ne arbitre dafa sifflé. dañoo génn Liss moom xeexkat la comprendre dañoo génn arbitre sifflé quoi Liss wàccee loxoom yow Pokola atam mun na bañ a dégg maanaam sifflé arbitre. lis wàccee loxoom mu dóor laaw lis daan comprendre nga ye arbitre ne leen dañuy waaw woowaat leen quoi ye foofu noonu arbitre sax daa mel moom la affecté xaw ma liis waaw loolu nice mais tamit làmb la woon daal tamit ñoom si géew bi liis daan na ko arbitre tamit gis nga waaw lépp làmb la rek mais mais moo tax euh, bi ñu bëre waatee arbitre bi mu leen woowaatee ci géew bi ñu waat ba liis daan ko pourquoi pas bi bi leen arbitre woowaatee pour ñu bërewaat mu bañ comme daan na. non non bañ lan comme kay jaraloon ñu fay teg arbitre waaw arbitre moo leen tënk di bu dee bu arbitre waxee ñu bañ moom ñoom ñu arbitral seen bopp ko waaw arbitre moo leen fa bàyyi ko waaw yeah. Mm. bi euh, jàll na ci jàmm euh, waaye ci biir combat bi dañoo gis liis ci beneen facette xeex bi démb liis malgré que combat bi dafa yàgg xeex bi metti ñu gis euh, Liss ci beneen façon mu tenir combat bi waaye xeex ak Pakola loo xamante ne démb supporter yëpp kontaan nañ. dëgg la mais làmb la woon rek barke yàlla yow Pakola jàmbaar la bañkat la ko waa mais yow Pakola gis nga du daw ko mais jël na ko wuli sax arrière. bilaay ñun nangul nañ ko de. waaw ñaari jàmbaar ñoo doo bëre ko waa. ah mais ñun bi daal moo ñu tënkoon. jee ñun waaw après daal ñun ñoo ménager ñun amul lu ñuy wax waaw. Ah, waaw lii loolu dañuy dugal recours kay waaw waaw nice moom nag waaw arbitre moom la jox victoire mais ñun luñ yoon may dañ koy def ko waaw lu am nag ñu xam ne naas làmb la daal ye ñun duñ ay noon waaw man bu ma sañoon Pokola day doon roi des arènes ye waaw ndax làmb dafa métti de saay ye lamb ji jeex na mais dañoo seetlu ne que après lamb ji nag dafa am ay ay ay jàppante yoo xamante ne am na si diggante supporteru jàmm gën ak supporteru Pikine yi lan moo lan mooy problème bi. après lamb moom jàmb am. mais avant lamb waaw avant lamb la ay problème am waaw si diggante ñëw bi la quoi ba ñuy ñëw ñun waaw ñun ba ñuy génn daa tombe rek sax daa tombe tamit Pokola di génn ñu degee si côté stade bi comprendre nga. mais ñun maanaam policiers yi jàmm ga nii ñoom dañoo sécurité mais egguñu Pokola buum yu mu àndal ñoom dañ kaa sécurité ba ñëw ba côté stade ba coole jibee ñoom dañoo dóor xawma kii raxara maser lañ fa dóor mais samay booy mënuñu ko nooy ñoom ñëpp ñu ah, daw quoi moytu maag li si oto ñu toj si ginnaaw ver bi si ginaaw waaw yee bañ tojee verre ma ne leen maanaam bu ma toogee si oto da dañuy dóor embuscade mhm. te mun nañ ñu gaañ quoi bàyyi ma waaj si oto bi jéem a jàppante ñoom pour yéen ngeen avancer rek mhm. yee loolu moo ma gaañ mais du dara. waaw te tayuñu ko ñoom sax ñoom ñoom xam naa ne bu leen leeroon ne man la duñ ma gaañ mais sëñ Fallou yee làmb la woon nii rek jeex na barki Alaaji Fallou mënul weesu lu dul làmb. mais est que nekkul tension làmb ji tamit moo tolloon foofu amaana supporters yi ñoo gënoon bëgg sax lamb ji ko ñaari mbër yi. waaw noonu la demee barke yàlla ñaari mbër yi bëgg nañ làmb ji teg nañ ko fu ne supporters yi bëgg nañ ko. yee mais gis nga après naa mënul wees lu dul làmb moo ngi jeex na waaw. gis nañ démb jàmm ñëpp dañoo génn dooleel lis macha démb xale yi mag ñëpp dañoo génn. waaw làmb yi moo tolloon foofu gis nga chaque làmb ak nuñ koy waajee waa et làmb jii nii làmb deret la woon waaw nekkul woon làmb maanaam làmb deret la woon ndax Pokola du gan te jaam gën bi waaw te moom am na fi ay mbokk sax barke yàlla ay mbokkam ñi ngi fii nii si ginnaaw moom fii la juddoo waaw bi la waaw naa am nañ ay gaañu mais barke yàlla ndogal la nii rek barke allah gi fàllu billaahi ñu koy gis ak ak violence bi nga xamante ne peut-être ñu ngi koy duut baaraamu tuuma waa làmb naan dañuy dañoo dañuy dañoo violent dañuy violent wala arène nationale ba amee lamb ñu bëri dootuñu nekkati en sécurité tamit day mel ni kon dañuy wax dëgg la. waaw si supporter yi la rek waaw te tamit ñoom dañuy bëgg ba mu jaral leen rayante quoi mais làmb jarul lool gi nga làmb sax gëmul yàlla waa làmb jarul loolu quoi bilaay lis boo ñaa lay xaar boo ñaa bu ko rëg-rëg daanee mu jël Boy Niang. da xaar nag yow yow yow boo ñaa man ngay wax dafa am Boy Niang numéro 2 wala. Boy Niang moo ñëwoon si stade bi di tiit di def ay gestes. mais dafa mais looloo yoon looloo ko war. léegi moom comme bu muy toog di sàqatoo affaire rek jàmm gën am naa fa am naa fa lee yee moom waaw moom nañ ko rëg-rëg daan ñun tamit rëg-rëg la ñuy supporté fii la dëkk bu ko daanee lis jël ko. ah wala mm. waaw rëg-rëg yàlla na ko yàlla may ndam bu yomb bu gaaw nga sama mag la ba may waaj combat MMA da see sonn bu baax rëg-rëg yàlla na ka daan jël bu yomb bu gaaw mais ñu ñoo bokk dëkk fi waaw boo ñaa dëkku fi bu mu ñu sàqatoo waaw dëkkul fii yeah ñu bàyyi la nga wax sa dernier mot Laurent waaw di jéggalu ñëpp nag di naan waa làmb gi moo tolloon foofu noonu comprendre yaay làmb gi moo tooloon foofu ñun ñun ñoo far barki leeru alxuraan yee ñun ñëpp ñoo far waaw mënul weesu lu dul làmb quoi billaay walaay taalaay lépp làmb la yee di jégalu waa Pikine yëpp ndax ñun Pikine moo jur jàmm gën yee gis nga bëgg waaw Zac Mbao yee di jégalu ñëpp barki yàlla làmb la woon rek yee bu dee wax commune maanaam communiqué nañ communiqué boo xamante ne déranger na nit yee ñu ngi lay jégalu barke Alaaji Fàllu waaw ndax lamb jee tooloon foofu te waxuñu woon ngir reyante wala dara dañoo doon neexal rek ñun duñ ay ragal duñ tàppet mais lamb la woon bu jeexee jeex na ñoom maanaam ñoom ñaar yëpp dañuy liggéey waaw ku si am sa gaale ngay yóbbu waaw gis nga waaw yàlla na leen yàlla defaral jàmm lamb la woon billaahi yee waxoon ah. nañ ci bu combat gën a jege si dinañ ñëwaat incha nga gën a waaj moom itam mu gën a waaj waaw incha allah yàlla baax na